xibaar yi wér fii ci leeral SN aboneel te cliquer ci cloche yi xaar suñuy vidéo jërëjëf mbokk yi ànd ak seen seen bii di leeral SN dal leen ak jàmm ñuy wax si ki nga moo di Ama balde moom mii nga xamante ni sax tur bi ñu koy faral di woowee jamono jii mooy Ama bu Sonko ndox sopp gi nga xamante ni sopp na ko Ousmane Sonko xëy na loolee ki nga xamat ni moo di Ousmane Sonko daal di xam ba tax na reportage bi nga xamante ni doon na ko def foofee sa këram ci salle d'entraînement am bi muy dem ba sax ba di wax ne moom soxluwul mbër yi nga xamante ni ñooy mbër yu ndaw yi waaye kii nga xamante ni moo di Ama Baldé laal la soxla. ba tax na ki nga xamante ni moo di Ama Baldé daal tontu na ko nee na ko daal revanche boobu daal moom du ko jël ndax moom kat du bëre ki nga xamante ni mooy président Ousmane Sonko ndax Ama kat wax jooju nga xamante ni président Ousmane Sonko wax na ko mel na ni daal ku ci kontaan lool te bég si lool ndax depuis boobu ba loolu daal mu ngi mel ni kuy feete li nga xamante ni moo di victoire mel ni ku daan bër ba noppi. ndax wax ji nga xamat ni président Ousmane Sonko wax na ko ne Ama laa bëgg a bëreel